Assalamualaikum waa kii bi ñu ngi di leen di leen ñaanal jamu di ko sàkk si yéen ñoo ngi bergerie Seydi Diamine bu la doyen Djibril Wade quoi waaw. waaw sunu participation si quatrième édition moom vraiment nekk na participation boo xam ni normal quoi et puis liggéey bu yàgg bi macha allah quoi gars yi ñoo ngi liggéey bu ñu sañjee bergerie bi ak léegi yàgg na quoi ça fait presque ay trente et quelque ans moo tax vraiment euh, ñoo bu am solo quoi macha allah. et tamit salon da salle bi tamit ni nga gars yi organisé RAS quoi rafet organisation bi jaar na yoon am na sécurité macha allah quoi. waaw benn seen jamono tey yow indi ay suñu quoi indi nañ fi benn mal ak euh, trois trois ou quatre femelles quoi quatre ñoom aussi tamit ñëpp fa lañ juddoo quoi la bergerie waaw ñu nekk ay sujets yoo xam ne bon am nañ ay san yu différé parce que élevage noonu da ngay sélectionné tibb fii tibb fii après boole waaw fu mu toll nii actuellement si génétique bu ñuy liggéey am na maal bu ñuy liggéey moom laa indi nii mooy Petit Gueye Petit Gueye papaam nekk sëtu xalaas ak ado yaayam ah, yaayam nekk doomu Taye Taye nekk doomu Bachir ak euh, benn benn frère bu ñu am Marie Pierre doomu la am fils waaw ah, moom loolu moo composé quoi maal bi waaw ah, mais aussi mu nekk géniteur boo xam ni mu ngi joxe doom rafet quoi macha allah waaw non bon waaw xam nga liggéey paa bi aussi tamit il faut ñu yeggale ko parce que comme paa bi moom moo jël âge et puis lenn lu nekk boo nekkee xale maanaam si ngay gën a am motivation wala kii pour def ko quoi et puis baa bi tamit macha allah liggéey na liggéey am solo léegi pourquoi pas ñun aussi tamit ñu jéem a yëkkati flambeau boobu relever géej bi ñoo ngi daal si défi boobu noonu la nekk voilà. mais aussi tamit gis nañ ni bi su duggee affaire yi ngi progressé wu quoi macha allah moom aussi moo ngi ciy jàpp si engagement bu baax a baax a baax. non pas moom bon parce que ñun mën naa ne ñëw fekk mu liggéey liggéey bu yàgg et puis boo xam ne mën nañ ni sans faute parce que yàgg na. du tey du démb xam nga du bërki démb quoi maanaam liggéey bu yàgg la aussi tamit ñun aussi dañuy jéem a dañuy dañuy a topp say tànkam quoi di jéem a aussi tamit teg fi suñu benn paa ñun tamit aussi. waaw bon foyel boobu nag dafa wàccee mais jàpp ñu woon ni salon bi la jur li ñu programme mooy après salon bi la jur far yàlla moo jur si salon bi quoi. waaw non vraiment yéen aussi kontaan na si vraiment interview bi rafet na trop macha allah et puis liggéey bi am na solo waaw yéen aussi tamit ngeen si luy génnee produit élevage bi. MashaAllah, allah seen liggéey si kaw si kanam